écoute sur jërë ngeen jëf jaajëf Abdoulaye Diop jërëjëf Yacine Pouy auditeur yeeg internet yi déglu jërë ngeen jëf ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax a baax di jaajëfal suñu ay partenaire nga xam ni. wolof Njaay moo ni peccum liir bu neexee yaay jaatee ca mbagg ya bokk na ci saabu fanikoo saabu bi setal tey xeeñ lu neex a neex a neex waa CCPS ñu ngi leen di kontaane ñoom i tamit bu baax a baax a baax waa kër Serigne Touba Fall et frère nga xam ne ñu indil boobu gaam di vite fait maa ngi leen di jaajëfal agro safi indil ñu safi lak wax naa ni première céréale bi nga xam ni moom la ñu defaree fii ci réew mi euh, indil ñu euh, waa tolkaay at ak waa Safir ñoomi tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax nga xam ni moo gën ci lépp lu jëm ci wàllu transfert ñi nekk Europe ñi nekk Amérique xam nañ ko Espagne Italie Angleterre ak fi nga xam ne mooy Canada maa ngi leen di kontaane bu ah, baax a baax waa euh, di fa nuyu sama gaañ wa waa Kabires nga xam ni moom laa wax ni moom mooy euh, supermarché lépp lu jëm ci wàllu électroménager ah lépp rek loo bëgg ak les grandes marques boo demee fekk ko fa ñu def ouverture bu doy waar waaye tabarkàlla réew mi bëggal ko seen bopp te dara xewagul donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax partenaires yi nga xam ñoo ñu wóolu ñi xamni ñoy and ak ñun ci sen journal des faits divers and ci ak l'homme passe partout ak Mamadou euh, Mouhamadou ndoy ban passe partout ngi lay ziar. ama ma ngi lay delo ziar. jël sama loxo bi tek sama digg ginnaaw gi mu ma. dafa lu la neex dafa lu la neex bu muy metti. kaay kaay sama waji bu muy metti ñofi fi newoon. ñoo de. dafa lu la neex ànd sa jamm yag ma ngi lay ziar di ziar euh, auditeur ak auditrices yëpp di ziar internet di di nuyu sawaay le revenant. Mm-hmm. ban ma lay ziar. jaajeuf <laughs> mom bu armée soxla mom day dem daal jox armée. ñëpp la fi ba. Mm. ñun jaajëf jaajëf ñu ngi leen di ziar. di dox ñu ngi leen di ziar bu baax. di ziar ñëpp ñu ngi ñuy déglu rek euh, di leen ziar baax di jégalu ci absente bi temps yee rek. yaa ngi ci liggéey bi euh, ñëpp xam nañu waaw nekkoon ci liggéey bu am solo di féliciter la police la gendarmerie. Hmm. tous les les forces de défense et de sécurité. ñu ngi hmm. leen di féliciter di hmm. leen waxaat euh, bonne fête. l'indépendance waa di ziar ñëpp waa réew mi yëpp tamit ñu ngi leen koy souhaité di leen ñaanal jàmm abaa jaajëf waay di leen fàttali sama drapeau bi drapeau Ndoye Bane ca Thiès la diis Sidi Diakhaté Kabayeri. ku koy bëre. ñaari mbëri nag man xamaguma leen de gis naa leen noonu rek ñun jaxalaf leen de ñoom ñu match nul de. Mm, duñu match nul. non nañu ci dimbali rek. non non non Thiès la diis. nañu ci dimbali. waaw. la diis. Mm. Mm-hmm. ci match nii nañ ñu ci dimbali rek. Ah. mënuñu ne. Mm. lamb jaa ngi deew ak. léegi lamb ji yàqoo lu ñëw di match nii moom loolu lañu dimbali léegi nag baan. ñaari mbër yi dañoo respecté geste barrière rek. Ah, fi ñu toll nii baan. Ah. Euh, je pense que entraînement yi war. bain yi war. Mhm. ak biteel yi nga xam ni moo war. waaw buñ la ko joxee doo mas si niil. Mhm. ay biteel am na biteel yoo xam ni. ah mooy biteel boo ko yoree doo mas niil. biteel bi yoo fi bàyyi woon. Eh. waa xalaas boobu noonu. mais nag Ndiaye. abaa abaa xam nga man man moom damay wax li nga xam ne moo fi ne. Mhm. waa ji ne woon na dinaa leen yónnee ay butéel ngeen ñam. mu boole maag benn waay. mu yónnee ma ñaari butéel. ah <laughs> waa dégg nga ma rek ma ñëw. <laughs> déglu ma rek maa ngi ñëw man xam nga man moom fa ma jëm raglu ma fa. mbir yaa ngi bëgg a leer de. <laughs> waa ji yónnee man ñaari bétéel góor a baan ko jël si. góor a baan. Mm. góor a moom moom laa yebal mu dem jëli butéel yi. waaw may dem di defee wareef. bu góor ñam butéel yi. Eh, waaw eh. xaaral rek maa ngi ñëw. Eh, xaaral maa ngi ñëw. waaw leen daal xam naa ko ci. Mm. abaa butéel bi ku nar a xëy liggéeyi bul ko naan. Ah, li ma leen xamal ci butéel yooyu. baan bu deel ya baax na. <laughs> li ma li waa ji daal waa ji waa ji dama ni test la waxoon test nañu. bu deel ya baax baax na de. abaa àjjana maa ngi lay nuyu bu baax a baax moo tax la li ma leen dox daal leer na li ma fën fi mu mën a yem mooy abaa abaa euh, abaa ah. yëpp bu deel yu wér euh, boo ma waatee sama tur. waaw dinaa wax. abaa wax wax. sàcc nañ en daal li ma mën a xam mooy. butéelee baax na de. abaa ñu fi jógee man de. abaa waxal sa grand yi que ne butéel de. Euh, taabaa ngi dem bi ma woowee baan man. waaw ni ko lu tax tey liggéey si woo. baan dafa ni ma booy ba leen lu leen wax ngeen weddi ko baleen dëgër bopp <laughs> li nga wax baan ngeen trop te ngeen dëgër bopp. li mu saf nag ko ma ci ko xam a <laughs> en tout cas bi ñu fi jógee de butéel yi. butéel bi baax na de maa ko waroon jëli aba mako ko waroon indi ko fini ni indi nako ba legi na xamul eh, Ban. baan góor Ban. da nga melni ah <laughs> ban mo jeli butéel yi baan te moko ñam <laughs> moy dawal auto ba mu droit ni ma ba bëgg ban mo mu butéel bi ku koy nan nang ko 18 ban lu jullit ñi di sant chrétien yi ci pag mi ci ngalax mi bëgg na la ko sante man ci butéel bi bëgg na la jox kop <laughs> no butéel bi dox ma ko man bëgg na la jox sama kop naan naan ngaa sonn nag na nan nan ngaa ndax ndax baax bu butéel bu baax. sama kopp daal moom bëgg naa la ko jox moom. waajaa nga Gàmbi. butéel yi defe naa mi ngi Ndakaaru baax na de. li ma ci jaaxal ah. li ma ci jaaxal daal. parce que borom Tuuba baax na man ko su baaxee ma ni ah, baax na. waaw butéel cinq la war a nekk bon. Ah. a nekk non non deux la joxe deux. ah góor góor butéel benn bi butéel yi moo manqué ci dëkk bi. góor jël eh, benn bi eh, eh. non Eh. beneen baa ngi ci bi moom koy soo bëgg ah, Diop eh, loo may ñaanee te amaguma xaar bañ jox ma rek ban ñu ñaan kay bari rek ah waaw joxe bu ma fàtte xaar jox ma rek Aliou mi ngeen doon dugg kii xam nga doon lan gaa yi jëw gaa yi nañ ma xam nga temps après match ba léegi liggéeyu ma maa ngi lay wax benn affaire Aliou dafa nekk ci liggéey mhm. fédération bi am lu mu ko sant li ko sant mooy qualifier coupe du monde qualifier coupe d'Afrique mhm. dem jël ko mhm. réussir na benn bi waxkat yi da nga leen bàyyi ñuy wax yow ngay joob ba keroog yàlla di wax mhm. bàyyi jëf mhm. Sénégal musul am entraîneur bu mel ni Aliou Cissé un sénégalais mhm. bu yóbbu équipe nationale bi fii amul nañ bàyyi kuy liggéey ñu koy ñu koy ñu koy yàqal nañ bàyyi lool te bis bu ñu remplacé woon Aliou Cissé fii ñu dem Coupe d'Afrique ci Coupe d'Afrique bii di ñëw barke Rasulaay duñ génn coupe baan baan je pèse euh, très bien ma man équipe nationale beeg drapeau bi ma yitteel. waaye ak man mi ku mel ni Aliou Cissé amaguñ ko ci réew mi. ah benn. Hmm. mooy bi muy ñëw fekk nañ ci ay tolof tolof. Hmm. ñaar fexe na ba créer ñu équipe. créel ñu ay star hmm. ñett fexe na ba bu yóbbu ñu Coupe d'Afrique. ñeent fexe na ba yóbbu ñu coupe du monde ñu gëjoon fa dix ans. fexe na ba wàññil ñu li ñu doon fay entraîneur yombalal ñu ko ba mu yomb lool. fexe na ba li ñu bëgg a wax mën nañ ko ko wax fexe na ba bu ñu toogee ci coupe d'Afrique mu ànd ak ñun ñibbisiwaat fii ci biir dëkk bi. donc Aliou Cissé buñ ko jàppale jàppale nañ nation bi buñ ko jàppale jàppale nañ équipe nationale bi te li ñu koy def nii. day dem ba ci joueur yi tey di yuux Aliou ak di ko nii ak nii day dem ci Sadio jàpp ci kii jàpp ci kële équipe la na nekk seen ginnaaw gunge leen ñu dem indi ñu coupe d'Afrique foofu laa yem lobira rek foofu laa yem man dafa am ay yeneen entraîneurs yu ne ci biti yi soxla place Aliou Cissé ba pare ami nit ci presse bi ak fu ne ñooy def seen i lobby di yàq der ñooñu la boo ko fi amaatee tamit naa ko fi dama ni waxoon naa ko fii <laughs> waxoon naa ko fii Aliou Cissé mooy capaacoli c'est le meilleur entraîneur du monde yow yow da ngaa far ci Aliou <laughs> man ci équipe waaw ak Sadio Mané ban <laughs> balaa ngay xalaas nuyul ma ko ñëw Fodé Moussa Guirassy. waaw dafa ñu xalaas. waaw lan nuyu ko rek nuyu ko rek. Fodé Moussa Guirassy waaw nuyu ko rek. ah lan moo tax ñu koy nuyu ko rek mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi RFM mi ngi ci RFM point sn bi nuyu ko rek. ñu ngi nuyu Fodé ayca. Richard Toll lañ jëm. lan moo fa xew. la fa xew rëy na. Hmm? ëpp na tool. benn enseignant la boo xam ni intendant la ci benn école privée. Hmm. ci école privée. dafa dafa dafa jar a leeral parce que dafa am ay intendant yoo xam dañ nekk ci école publique ki intendant la bu nekk ci école privée ci centre formation ci benn centre formation ñu jiiñ ko viol ba fi ni arrêté nañ ko paas mi ngi doon wax ak ñom wax na ak xalé bu jigéen bi bañ jël ko interview ko wax ak papay xalé bu jigéen bi après ñun wax nañoo ñeneen ño xam mënu ñoo jall ci rajo bi ay mm-hmm. kilifa yu necc ca biir dëkk ba ut ay yeneen information ak yeneeni xale yu jigéen yoo xam ni témoigné nañ ci cas bi hmm. déglul bu jigéen bi li ko daal dama ñëwoon fii sa benn formation même temps ma nekk ak sama mag bu jigéen bu nekk en état ma nekk mu dem Thiès pour noppal ji léegi amu fu ma nekk saa waxee suñu intendant bi mu ni waaw mën naa faa nekk mais il faut ay kilifa ñëw fekk sama yaay ñëw na fii ba sama mag ji amee doom lagi ba sama yaay ñëwee léegi mu ni après maanaam moom ñu anu ànd ci int kër intendant sama ya to mu toog ñu waxtaan fras ma ko franchement parler sa ko bu yaru la ko baax la daal mu ñu jabaram ak ci doomam ak dom doom magam dom magam bu góor après bañ ñu waxtane yëpp sama yaay xelam dal ni ko xamoo papam jox lako ko bam ko ba bam wooyee sama ya bam mu sam sama ya, papa e jox ko ko sama papa xelam dal ni ko sama dom bu jigéen yow laa ko denk na fa jànge école ñibbi si ñu ko allah am benn problème sama ñoom yaa dem après ma ñëw fi février dimanche février laa fa ñëw dimanche février laa fa ñëw sama ñoom yaa ñibbi mardi février Thiès man la nekk ma ñëw ci kër Ba bi loo fa après fa dugal ko ci néegu xale yi mu ni léegi doom doom magam boobu ni paa neen valise bi ci kaw lañ koy aj néegu gan moom ci kaw ne dafa am benn néegu gan loolu la wax léegi ñu aj ko fa mag benn doom bu jigéen nag bu ndaw bu am quatre ans ñoo fay fanaan moom nag ci saal bi lay fanaan fee léegi appartement bi ci kaw bu ñuy tëdd dañ koy tëj léegi jabaram ci suuf lay fanaan ak i doomam léegi mag moom ak doom bu ndaw bi ak moom mag moom ak doom bu ndaw bu am quatre ans bu jigéen bi ñoo ñooy fanaan ci appartement bi ci kaw léegi man ma tëdd sama néeg ak doom bu jigéen bu ndaw bi ñu ñooy fanaan ñu tëdd foofu moom ma tëdd ci saalam ñu toog ba benn moment paa bi bàyyi moom bàyyi ba ma nelaw ay minutes la ñëw bàyyi ba ma nelaw mu yema nakate moom ba ma amee sama tur papa sama tur yaay la ñu moom daal bu la xasee ba am daal jeex na loolu mu la wax rek moom ma kaay ñëw topp ko yóbbu ma ci saal ba ni ma déshabitué ma simmeeku sama kaw ma ko yaa ngi ma noppi laa wax mu yegg sama kaw gaañ na ma nag mu menacé ma mënu ma wax kenn dara après ni ma dem nga sangu ma sangu dem def na ma ko ñetti yoon nag ñetti yoon. bu jëntee bi semaine bii la ma ko def si la benn si la doom magam ji nekk ci kër ga toog di ma sif sama lekkatuma defatuma dara mu ni mu ñëw ci man ne ma yow yaa quelque chose man ko du dara mu ne ma wax ma lan la am na xew te il faut nga wax ma ko mu topp mu topp ma mu sama xol gi mënatu tee dara ma dund loolu boobu si laa ko expliqué lépp mu ni bett koon ci paa bi ndax paa bi loolu yàgg na koo def ndaxte paa bi moom lay mistin lu bëgg da koy am te yàgg na koo def te du mujj fenn du dem fenn ay arrangement rek lay doon ñuy waxtaane muy bàyyim sent. Yak société bi yàq xale jigéen ñi ni xam ne samay parents xam nañ ko presque bu ma amee jaaxle parfois dana waxtaan ak man dima yedd ci di ma may li may li ma wax ko kooku kooku wax sama yaay sama yaay loolu mënu ko muñ mënu ko léegi damay wos paa bi sama yaay si rawee paa bi ne ko sama doom génn ko kër ga wóolootuma la nga Apa après sama yaay si jour ba may jël sama bagage yi paa bi fekk maa ngi sëgg di mu door ma ci loxo ni ma wàcc fi yeneen bagage bi sama jabar pare dina la ko indi man kooku ne ko déedéet yëpp la ñuy yóbbu sama yaay suñu liggéey yëpp sama papa ci lañ porté plainte ne lay porté plainte mënu ko muñ sama yàq carrément ba jaratuma dara léegi si sama si laa génne ko gis ñu porté plainte ba ñu porté plainte ñu dem kii hôpital ñu xool ma def lépp def lépp daal bañ paree ñu jàpp paa bi indi ko léegi ñu def confrontation après si la mag paa bi si lañ toog yow bi toog bi ñu enquête nee moom violé ma defuma dara nee na mu ma ma enquêteur bi laaj ma ma wax ko li ma paa bi def yëpp. xale bu jigéen bi 17 ans la am. waaw mm-hmm. ah, 2004 la 2004 la judd waaw. dégg nga de mm. xale bu jigéen bi def naan ànd ak ay parents. ànd nag ay parents parce que moom sëram nekk nekkaloon foofu. waaw Jatol. Mhm. bi muy sëy foofu moom mu dem fa. Mhm. nekk ak sër bi di jàng foofu ci centre ci centre formation bi. Mhm. léegi nag sër bi dafa ëmboon. ba accouché ñëw seen kër di noppalu. léegi nag xale bi amul fu mu nekk amul fu mu nekk. ñu proposé ne paa bi mën paa bi ne mën na nekk këram. ne mun na nekk këram. yaayu xale bi jóge na fi dem na ba foofu waxtaan ak paa bi. ñu woo papay xale bi ñu daral xelam wan ko ni daal mën na nekk fi et parce ay jigéen ci lañ ko fa bàyyee. déglu papa xale bi. sama doom dafa nekkoon foofu ci benn sëram léegi nag euh, ginnaaw xale bi dafa doon jàng fii ba def BFM après mu pare euh, sëram bi ni am na école de formation parce que cette euh, école la boo xam ne c'est reconnu par l'état loolu moo koy yóbbu léegi ba mu demee ba sëram bi am doom ñu opéré ko il fallait mu ñëw noppalu ci dëkk seen dëkk kaa seen kër il fale xale bu jigéen bi li ci nekkoon mooy soit mu ànd ak moom ñibbisi wala ñu wutal ko fu mu nekk foofu mais la muy ne ci école ba yëpp waa ji mu ngi doon def euh, lobbying xam nga ñoom ginnaaw dañuy yëngatu ci affaire u jibaar ak kenn xamul yooyu euh, fexe na daal ba jege xale bi am na yu mu wax ak moom ak yooyu daal ba xamal ni ko bon moom même bu fekkee ki mu nekkal mi ngi dem moom këram am na ñu fa ñëw ñoo xam ni même bu ñu def formation dañ leen fay dénkaane. donc moo def lobbying pour xale bi ñëw foofu même sëram bu fa nekkul moom mun naa nekk këram comme ça bu ñëwee mu nekk foofu njabootaangam fo ak ñeneen ñoo xam ne ay jarbaatam ak ay doomu jaamur yoo xam ne moo leen yore donc euh, noonu la affaire bi demee léegi nag euh, euh, waajuram bu jigéen ba mu fa ñëwee wala ñibbisi moo ko yóbbu foofu dem ñu waxtaan mu wax ko yu bari xam nga gëmloo ko yu bari ni ko daal man sama kër li moo fi am lii mooy sama réglement nangam nangam kenn dox ba timis wax wax wax daal boo xam naa pour rassurer la daam après euh, yaayam bàyyi ko foofu mu ñibbisi donc noonu loolu daal moo ko dugal ci kër waa moo ko dugal kër monsieur yóbboo yaayam paas na ma waa ji mu ne ma kii lañ koy dénk parce que moom li muy wane ci biti nii toujours day wane nii moom c'est un gars xam nga dafa lii dafa laa man ma ne woon après incha allah dinaa fa dem moom deux mois rek la fa def deux mois la def ci kër gi ba mu waxee ba pare ma ne bon man dinaa fa dem matu sax deux mois defe naa man dama noonu après dinaa dem seeti waa ji pour gisanteeg moom. bon yoroon naa numéro téléphone am woo naa ko waxtaan ak moom aussi ni kon nag xale bi bu fekkee def na benn affaire boo xam ne c'est pas conforme ak li nga bëgg sa kër oto bi njëkk romb foofu dugal ko ci bu ñëwee man maa koy fay. waaw donc yooyu waxoon na ko moom. bon dafa am benn suñ benn mbokk bu ne foofu suñu benn wax dëgg yàlla benn rek moo ko moo yëg affaire bi xam naa xale bi moom la ko wax parce que xale bi nee na heure bu ko bëggaan a wax rek day amee ni dañ ko am lu ko téye xam nga waa ji moom day yëngatu ci affaire duñ jibar ak yooyu moo tax donc nee na heure bu bëggoon a wax affaire bi rek day mel ni dafam am lu ko téye léegi nag am ku ko seetlu daal ni kii dafa am problème boo xam ni xëy na da koy nëbb kooku moo ko laaj mu wax ko affaire bi kooku la ko wax kooku moo yaayam wax ko yaayam wax ma ko bon donc euh, ñu jaar procédure normal ba xam ni def na ko donc xam nga dafa am procédure bu police di jaar euh, hormis enquête yi am na prélèvement yu ñuy def au niveau de l'hôpital et puis am na benn clinique bu ñu ko yóbbu clinique bi sax euh, vraiment man daf ma jaaxal parce que clinique monsieur damay wax turam bañ ko yóbboo waa ji dafa astele foofu xale bu jigéen bi ni ko ah nii ngeen di def yow nan lañ la mën a kooku du la ko def parce que kooku dañuy daje moom séminaire te mu ngi weer yi na la laajee pour nga def prélèvement tu n'as pas à poser moo ko def moo ko deful waaw euh, wax naa ko après ñu yóbbuwaat ko beneen hôpital pour gën a mën a am contre expertise donc xam nga dëkk yu mel noonu nit ñi ñoom ñëppay ànd ñooy bokk ay bagages ñii dañuy jàppalante ci yoo xam ne dafa bon un prédateur on doit pas le donc ba ñu defee plainte bi aussi wax dëgg yàlla police def na ci liggéey bu rafet ñoom wax dëgg yàlla macha allah ñoom moom chapeau. def nañ ci lu ñu mën daal wax dëgg yàlla ñu leen koy santé di la ko gërëm parce que loolu la ñuy xaar ci ci ñoom. un habitué des faits loolu moom dégg nañ ko wax dëgg yàlla ba ñu ñëwee dañ ni ñun sax nan la ñu mën a gisee kooku di ko mais man naa xamuñu ko et puis wonuñu loolu te ñun dëkkuñu fa xam nga. waaw yaakaar la ñu amoon rek et puis ba mu nekkee fële xam naa am na lu mu def xale bi parce que moom nee na xale bi ba xale bi ñëw këram dañu ko woon yow bopp waaw dañu ko soo ñëwul woon buñu la indiwul woon yow yaay indi sa bopp donc moom am na yu mu doon def pour xale bi ñëw këram donc euh, yooyu yëpp mi ngi ci nee nañu ba mu nekkee depuis mu nekk enseignement primaire nii la mos di fonctionner ba keroog muy nekk internat école bi te waa dëkk bi yëpp xam nañ ko te dañ cee noppi bu ngeen laajee ngeen laaj ñaata jabar la bàyyi bu ngeen defee ay micro trottoir di ngeen ci xam lu bari bari bari bari koo ci wax koo ci laaj mu la kii bett ma parce que moom ko ñëpp xamoon nañ ko lool mais dañ ko doon denc rek noppi waaw te c'est ça qui est grave. Aba dégg nga papa ji mu wax école bi en fait du du privé. du privé du privé public la. public centre de formation professionnelle la parce que intendant bi jaxal na ma ci. Ah, école école publique la. ngi non ci Richard Toll papa jangi non noonu loolu la loolu la expliqué. Mhm. Euh, defe naa ne waa ji arrêté nañ ko. arrêté nañ ko euh, defeere ko waaw defeere nañ ko. Mhm. voilà loolu xam naa nag ñu ngi koy suivre. Mhm. euh xol affaire yi fan lay fan lay mujjé aba mais nak mais nak mais nag comme comme comme dañuy wax né ci li li ñu jot dégg ñu né waa ci c'est un habitué des faits mais li gën li gën doy war moy waaj dañ koo xaw ragalee xel. Mhm. parce dañ ne waa il est il est trop mystique. parce oto bi dem bi ko doon yóbbu oto bi ko doon yóbbu défermence dafa accidenté. Ah. dañ ko mujjee changé beneen oto. Hmm. mais du ñàkk ni fii ak ngoon di nga fi dégg yeneen i réaction yoo xamante ni. Mhm. par rapport ak dossier bi parce que am na ñoo xam ne ñu ngi koy waxante ci suuf. am na yu bari yu ñu koy partagé ko teg parce que seeni ñu ñu teg ko. ay bon yu fa doon liggéey ak am na si koo xamante ni fa la doon sëy ba tas maanaam moom dafa ragal sax dem bàyyi fa doomam bi mu jur ak paa bi te maa ko wóorul baal. waaw moom mais mais mais c'est quoi le problème. Sénégal ah ba fii dëkk bi dafa am ñu feebar de. Ndoye am na benn wax bu ñu fi waxoon benn jour. ñi lay war ñi la war a wax takkal sa sër. Mhm. ñoom ñoo koy tekki ñoo lay tekkiloo sa sër. la ñi la war a ñi lay takkaloo sa sër ñoo koy tekki. ñoo tekki sa sër. fii Sénégal te en général ndeysaan jigéen amu fi doole. dëgg la. xale bi mais xale bi soo gisee résultats yi mu am ni dafa am papa ak ah. am ñu am taxaw am suivi waaw hmm. Hmm. papa mi ngi dund hmm. yaay mi ngi dund am ginnaaw am ñun ñu porter plainte suivre ko muy muy nekk muy nekk ci yoon mais dëkk bu yéeme leen nekk aba booy maraîcher de soy soo fanaan cëpp ñu lay jaay <laughs> dafa xew moom dafa doy waar mais dañ lay jaay ay doomi réew mi di jaay seeni doomi réew nii nii nii aba déglu kii nañ jël nii yoon suuf laa jaar waaye uh, yoonu suuf li la si nit moonta wax li la si nit moonta wax am na lu des njaayum nit gii nekk yi bii nekk boo maraîcher lu fa état bi jublu maanaam gaa yi ñuy bàyyi di jaay nit ñi normal man saint wi laa dëkk jour bu ma jegee Saint-Louis man ñoo ngi may jaayee ci ca ca ca foofu comme ni ñu comme li sawaay di wax man jour bu ma accès boo marché damaa tiit yàlla mi ma musuma xaw ma woon boo marché damaa ñëw ba marché ba eh, fee Pikine ma laajte boo marché ñu yóbbu ma fa waaye bu ma accès bu ma wàccee ci taxi bi ni ma gaa yi def mu ngi mel ne tabaski nga àndi xaar bu magre rek ci daral gaa yi di ma njëkkandi ma ne leen lan moo xew ñee di la wax wax yu ne façon billet bu ne ñu woon la ko oto oto boo fa waxoon oto bu jëm France ñu ne la mu ngi nii waxuma la nag Mali nañ nañ na état bi xool li nekk boo marché gaa yi di jaay nit ñi boo marché pour lan pour lan boo wàccee boo marché yaa ngi mel ne xar xar bu bees ci dara gars yi bu ku ne génn bii ay sénégalais kese ku ne di la bii Mali la jëm bii benn la jëm bii Nigéria la jëm lu ne ñu wax ko man bu ma fa jëlee biis man bu ma ñëwee Mali tam man man li ma das ci yoon bi kenn xamul lan la kenn mënu wax man ci yoon bi laa jër damaa dem ba Nigéria def na Nigéria six mois benn six mois dóor yi ñu lay dóor Nigéria gare yi ñu la fay jox sénégalais xamul loolu. lu ne ñu jox la du six mois laa def Nigéria dóor yoo xam ne sama sama jaram lépp lépp lu fu bari fa la yàqu ñu lay dóor ak militaire di la jàpp ak ngay fanaan ci ay toolu ñàmbeeg cinq six mois def nañ ko ci ay toolu ñàmbi ci toolu ñàmbi la ñu dégg def fa suñu ay bant rek defar ba moon fa tëdd six mois ci tool yoo xam ne day taw chaque jour day taw chaque jour ñu nekk fa six mois jóge fa jaar ci ndox ci gaal boo xam ne ñu jaarloo ñu si gaal boo xam ne Nigéria ak Gabon une semaine ci géej boo xam ne ngelaw risque boo xam ne Sénégal yi di def lu ne Nigéria fekk naa fa benn sénégalais bu tudd bari kooku mu ngi bëgg rey sénégalais yi mu ngi bëgg rey sénégalais yi jóge Sénégal di leen jaay Nigéria gars yi di mafia boo xam ne sénégalais am na bu fi nekk benn am na bu si nekk biir Nigéria ku nekkoon Nigéria amoon naa numéro bari la tudd sénégalais pire. bari la tudd sénégalais pire bu kam Dakar. kooku Saint-Louis la dëkk dafa jege woon Ndar pour dem Gabon ñëw ba Nigéria bokk ci mafia boobu di jaay nit ñi maanaam boo ñëwee comme ñun ñu alpulaar yi buñ ñëwee kooku mooy waxtaan ak ñun man bi mu ñëwee Nigéria fekk naa ci kooku tudd bari héberge plus de mot nañ ay trente maliens burkinabé bi mu ñëwee tam moom ak bari ñoo ànd. door nañ ma fa deux cent dix mille man bi mu ñëwee benn dama agsi benn. ñu ne ma kaa ñu yóbbale si COPSER sénégalais bi bu mu ñëwee def ma ne jox ma trois cent mille ma nekk aw ma loolu mu ne ma léegi jox ma quatre vingt mille ma dàggal la billet bu la yóbbu frontière Cameroun bi mu duggee biir Nigéria ñu jàpp ma ñu yóbbu ma si benn paa guinéen kooku tam trafiquant la moom tam dealer la ci jaaykat nit ñu la bokk kooku moom ma dugal foofu ci biis bëgg ma yóbbu bëgg ma yóbbu frontière Cameroun ñu ne ma frontière Cameroun boo fa demee. foofu dañ ko tëj ndax fa am ay guerre anglophone ak francophonie dafa am guerre man ñu boole mag bari boobu sénégalais boobu tudd bari te mu nekk Nigéria. bu ma fi këram man bu mu ñëwee si kër gi damaa tiit sénégalais attana def sénégalais jëf joo xam ne néeg bi ñuy yóbbu ñii di jóge Sénégal néeg bi ñu leen di dugal wal billaahi wallaahi taalaahi néeg bi ñuy dugal sénégalais yi jóge foofu moo raw rëbës. néeg boo xam ne luy matt lu ne mu ngi si biir néeg doo lekk dara ay gareg loo yor ñu nangu loo yor ñu nangu ñu lay dóor ak saag ak ay mouton di ñu wooye mouton moutons d'Afrique du l'Ouest mouton non non man yaan man lii lii lii daf maa metti lii daf maa metti trop trop ni boo boo maraîcher ni ñu koy bàyyee ni ñuy bàyyee Sénégalais di jaay Sénégalais yi di leen wax loolu kenn xamul. nañ nañ ne état bi xool li nekk boo maraîcher gars yi di jaay nit ñi boo maraîcher pour lan pour lan boo wàccee boo marché yaa ngi mel ne xar xar bu bees ci dara. non soo fa a Diop wàccoon ndaw xar mu mag. xaral laadum kay. non lii moom war nañ cee koo daan laadum. ña Ablaye Diop laadum piir yow Aba jaay bi dalaa jaaxal lii. ye jooy de. te doo laaj ñaata ñeen jaayee de. dañ lay jaay te doo eh, xam ne ñu ngi lay jaay. Eh, jaay bi doo xam nga jaay bi ni muy demee. Mm-hmm. ki nekk boo maraîcher. Mm-hmm. yow boo ñëwee bëgg a dem. Mm-hmm. mu war la yabal ca ka ne gaawoo.

jigéen ñi di dem ci dëkku arab yi di liggéey ci këru naar yi ñoom ñu leen di jaay pour courtier yi nekk Sénégal ñoom ñooy wax ak naar yi ñu yónnee leen contrat dajale seen xaalis yëpp yónnee leen ko ñu daggal la ci billet nga dem fekk sa xaalis ñoom encaissé nañ ko boo demee doo fayee ko cent franc jigéen ñaa ngi lay dégg ñu nekk ci dëkku naar yi dama ci koy def ah sénégalais nous jël seen sénégalais ay africain jaay leen encaisse mm. seen nga xamni ki yaayam moko tax di des wala soxnaam wala wala ay sacrifier ko yow à l'aise sa conscience tranquille ah, amna ay yi ñi ngi dégg nañ def boo maraîcher yaa ngi dégg li fa xew. nañ siiwalu rek. ñu ne ci réew mi autorité yi xam ne lii mu ngi xew ci boo maraîcher gii. damay ragal ab policier ban daa ba a wax rek mais ban émission na fi fii. waaw. comme comme invité woon passeur ba. ne fi lañ naa fii émission def ko ay booy yu jóge libi fii toog fii nga toog nii def émission fii ma def émission par gendarmerie ñëw dugg fii jàpp waa ji yóbbu. mais mooy dëgg. te booboon nee nañ moo doon jaay gars yi foofu. mais mooy dëgg. abaa gi nga bii xaju fi. dafa sonn. xaju fi. kii lan ma ko war a sonal. mais gis nga kii ab aba dafa am rab bu nekk ci moom. rab bi su ko daanelee moom day nelaw. parce que bañ bi ñu déggee bi ma déggee élément bi moom bu wax a pare man damaa bëgg dugg dugg ci lu leer. Hmm. dama ni na ma na témoin yi wax. mais waa ji ndaw si day nelaw su nelee après day jóg nekk beneen nit jigéen la may da yor baatu góor ba pare màgget. Hmm. ci dëgg. ci dëggantaan. baan loolu ci fi mu la am de wa deglu ma day jog màgget moom magget la wax de ñi febar ci kër geek ci koñ beek ci dëkk ba ñëpp mu leen di faj hmm? ñamu faj wax nañ ci lu leer ñamu faj la wax de moom ñi muy faj après su fajee ba paré ba affaire am jeex mu nekkat nit yeewu moom bi mu yeewoo wax na ak ñun hmm? ñamu faj ndaw sa amoon fibrome ba am problème am do borom tëj fibrome yi wax na wa koñ ba wax nañ ba ci yaayam sax yaayam wax na maire benn maire buy fajaate ndax xale bu jigéen bi dem pour maire bi faj ko foofu xale bu jigéen bi moo koy fajal moom maire bi ay malaatam. di xalaas looloo jeex. doy waar lu doy waar. man man man affaire bi maanaam nit ki day nelaw. su daanoo su daanu su ko rabi tëralee moom day tëdd nelaw moom xale bu jigéen bi su nelawee quelque temps après moom day day am lu jóg moom mooy jóg yow jëmm xale bu jigéen mi ngi mel ne paas tëdd. après jóg man pas kanoo passe-partout gis mais kanam gi day changé ah, yaram bi changé mu nekk màgget voix bi day changé xalaas nga xalaas bu risque waaw ubbee nga armée waaw teg ci Aliou Cissé waaw teg ci viol teg ci Lac de Guiers teg ci viol teg ci Lac de Guiers teg ci butéel bi eh butéel bi ko de ñu naan nga teg ana ñu ko bëgg ñii jaay seen i ana ñu ko bëgg des cœurs su ma jëlee congé di ngeen d'accord da ana ñu ko bëgg ñoo ngi nii ana ñu ko bëgg